نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى mbokk yi kii di président Ousmane Sonko njiital Pastef mi ngi ci guddi gu ba mi ngi dans la coma ñaari Moustapha yëkkati kàdd yu doy waar ba ku ko dégg loxo daj gémmiñ ñu ñëw seet si ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Tidiane Niass nekk dofu maam xalifa nekk itam ki nga xam ne moom mooy Serigne Ousmane Sonko ñëw laaj ko naka la gisee li nga xam ne moom mooy actualité réew mi rawatina ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. <coughs> alhamdulilah rabbil alamin alburax ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateur yi safoo di seetaan sans limite di ko jaarale ci xaral yi uute ci réew mi ak bitim réew ñun nag ma fas yéene fas yéene waxtaanee tolluwaayu réew mi. ak euh, actualité lenn ci actualité ci réew mi. Mhm. nga xam ni lëmbe na réew mi lañ ca xam ñu wax ko ca lañ ko xamut ñu gërëmee ko yàlla buñ paree jàll ci aussi ci géeju xam-xam nga xam ne mooy suñ yitte di suñ métier aussi tamit di lu li ñu yàlla nattoo muy ñaan yàlla ak faj soxlaay jàmm yi. d'accord mhm. sëriñ bi kii di président Ousmane Sonko ginnaaw bu mu tàmbili tàmbaliwaatee li nga xam ne moom mooy grève de la faim bi ba mu jural ko ay jàngoro. ba mu jural ko li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe nag nga gisee loolu. waaw alburax dinaa njëkkee wax ji ci sénégalais yi dëgg yitteel. Hmm. sénégalais yu kàcc yitteel nag waxuma leen parce que ñaari senegal moom am na koo xam ni maanaam coono Ousmane Sonko daf ciy bànneexoo mooy ñi nga xam ni ay nervi lañ waaye nervi yoo xam ne lañ dañoo mbubboo seeni làmmiñ di wër ci plateau yi di kàcc di wër ci këru kilifa yi di kàcc. di wër aussi ci citoyens yi di kàcc ñooñu ay nervi lañ yoo xam ne maanaam nervi làmmiñ lañ am ñoo xam ne dañooy nekk nervi yoo xam ne nervi déguisé lañ neexu ñoo xàmmee maanaam dañuy nuroog ñuy wax dëgg te dañuy kàcc ci kaw jëmmi Ousmane Sonko. Mhm. Euh, bala ma dee nag fi may njëkkee wax li may bëgg a wax ñu naan réew mi ko fi wax ak ku fi nangam nañu ñëw jàpp tëj président Macky Sall moom mooy kan ba réew mi kenn amul droit wax uriam kenn amul droit wax lu la naqadi yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam moo ko gën a for gën ñu ndey gën ñu bàyyi ñu ñëpp ba pare gën ñu teg ci mais yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam moomu daraan def Seydina Omar ko ànduma ci lii ci lii laa ànd wax ay doliyaasam saaba yi ñu wax ay doliyaasam alquran ñëw opposé wu ànd ak Omar mais ana kilifa yi nga xam ne jàngoon nañ histoire yooyu noonu waaw xanaa Seydina kon moom moo leen gën a bëgg lu baax moom mi daan jël yonent bi gis mu daan jàdd yoon mu teg ko ci yoon donte yonentu bi maanaam euh, ku dul juum amul mais yonentu bi yonentu bi sax daraan juum yàlla rek moo dul juum mhm. yàlla kese moo dul juum mais Macky Sall dafa def lu raw juum dafa juum juumati tooñ tonjar bi ñëpp gis ko kenn kenn nangu ci wax alburaax mhm. la preuve mooy tey dañ ne la pays droit lañ nekk ban droit ban yoon état de droit état de droit lañ nekk aussi ban droit ban yoon mhm. fii droit amu fi yoon amu fi parce que mënoo ne ñaari justice nga bëgg a teg wala ñaari yoon nga bëgg a teg wala ñaari mbir ngay doxalee dama ni yéen opposants yi yéen laay njëkkee bala maa ñëw ci Ousmane Sonko képp koo xam ne li justice bu Casamance bee dogal ne nañ jox Ousmane Sonko fiche de parrainage am ñu dem uti ji parrainage waxoo ci complice Macky Sall nga ak koo mën doon. Mhm. maa ko wax man Cheikh Niass bépp opposition buy laaj réew te waxoo ci li justice dogal état taxaw dëgg ci tànkam naa fekk nga complice nga bu la kenn votel bu la kenn parrainel parce que lan parce que tey ñooñu ñàkk a wax. Hmm. ñoom ak état bi ñoo ànd pour ndërmel Ousmane Sonko que xam nañ ñoo yem que heure bu Ousmane demee midi pile ñoom jotul ñu seen caution hmm. bu fekkee nangu nañ lii Macky Sall nar dogal jër nañ jër ñuy voté ji nañ ko bàyyi mu Macky Sall mu tànn ku ko neex jër ñu koy voté sax ñu ko nañ joxaat nañ la réew mi. Hmm. parce que lan parce que même boo demaatee it dogalaat ne diw gagné na prés gagné na. Amadou Ba it ni demee waat. Mhm. dañ ci dëgg seen tànk. d'accord parce que dëgg benn lay doon du nekk ñaar. mu ci grève grève de la faim Ousmane Sonko. Mhm. grève de la faim bi awma lu ma ciy sori. lépp sénégalais yi ñoo ko ko teg ñoo ko nangu. parce que pourquoi pas ñoo ko ko teg ñoo ko nangu mooy Ousmane lépp lu muy jànkuwanteeg ñun ñoo tax. waxoon naa ko ci vidéo waxati ko waxati ko alburax ki tax. Mhm. nga tax li nga ki tax ki tax ngay tax taxi. bu taxee ngay tax taxi te taxoo moom mu war a tax taxi. yow tax-taxeem googu noonu ak sa tax-taxi googu noonu yàlla gërëmul ci benn mhm. parce que Ousmane Sonko nag moo tax ñuy tax-taxi jamono ji parce que moo tax jamono ji ko maanaam élection am élection moo tax mu am élection yoo xam ne ñu noonu ruuma nañ dañ koy pousse deux ans mhm. ñi ma ñoo jàpp dimbale ba mag président Macky Sall ñi ma wuti posé troisième candidature fii réew mi Ousmane Sonko moo ñu dimbale ba nga xam ne xam nañ lépp loo xam ne ay suñ source naturelle nekk fii réew mi Ousmane Sonko moo ñu dimbale bañ xam politiciens yi nekkoon jur yi daan wax dëgg ak yi daan kàcc yi daan déguisé wu nekk ci biir politiciens yi di mbubboo turu kilifa te duñ kilifa te alal rek la ñuy seen waxu démb ak seen waxu tey boo ko comparé daan toog am na ci ñoo xam ne dañuy déguisé wu toog toog ci gàmm wala ci fu mu mën doon ci tant taxaw di xas Macky Sall ndeke seen intérêt personnel kese lañ daan jàmb mhm. tey ba leen Macky Sall di seetsee ñii ñi ngi toog di di di di ko jooyal ñii ñu ngi toog di ko ko raayal tànk ñii ñu ngi toog daan ko Amadou Ba mooy falu ñii ñu ngi toog daan voté leen Amadou Ba jox ko nangam mhm. mais damay laajte waaw ñoom ñuy ay kilifa buñ faree wane fiñ far état protégé leen ñun amuñ droit ñun far fuñ far ñun ñoom dañoo gën wala dañoo dañoo jàng luñ jàngut wala dañoo xam luñ xamut wala dañoo juddoo fuñ juddoo mhm. ñoom ñoo waroon a taxaw ci bopp bopp réew mi maanaam régler stabilité réew mi xamal njiitu réew mi fu mu war a yem xamal opposition fu mu war a yem mais bu ñu demee ba jël seen seen jëmm ak seen xol seen lépp jox ko état ngir alalu àdduna doo ci gis ku ne la ku ne la Macky Sall la dama lay sant ngir ngir ngir sa jullite. Mhm. dama lay sant ngir sa diine dama lay sant ngir ni nga fonkee diine. dama lay sant ngir ni nga fonkee mag ñu baax ñi dama lay fonk ngir sa jub ak jubal waaye dama lay fonk ngir sa transparence si lan ci réew mi képp koo xam ne APR la ak Pastef ak nangam yemale nga ñëpp képp ku war ku ñu war a jàpp-jàpp doo gis ko kilifa dina ko ko ci wax mukk ak kilifa mu koy wax mooy maa ngi sant maa ngi lay gërëm defal nga ma ceeb bi doy na li fa ba indi doy na nangam doy loolu kase bu ñu demee nag ba maanaam ñiñ yaakaar taxaw di santé nii état ñun dafa war a jot ñun tamit ñu jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk ñu xool nañuy topp ak nañ dug topp xool nañuy téye ak nañ dug téye yàlla sax bu mu nañu téye ko daf ne wala tafarraqu bi hablillah wax leen waxu dem leen seen nafs jàpp leen buum gu leen jëmale ci man la wax loolu la yàlla wax mag ñi mañ ci daan nekk da nga déglu kasetu mag ñëpp ku ci daan waaraate liggéey leen jaam leen yàlla bëgg leen yàlla fonk leen yàlla xam leen yàlla yooyu rek la mag ñi daan daan wax léegi lu ñuy waxantoo diw ministre nangam sama xarit la diw nangam sama xarit la loolu ba kañ bu ñu nañ respecté nit ñi. d' accord voilà d' ñuy ñëw ci ñaari Moustapha yi dañuy dugg ci clinique bi tuuti ci wàllu ñaan yàlla lan nga ñuy baaxee tey. clinique bi li mu njëkk a indi. Hmm. Euh, taxaw ci te di ci insister mooy li ñuy wax maanaam impuissance sexuelle. impuissance sexuelle. gis nga alburax impuissance sexuelle yàq na réew mi lu ci ëpp. du hmm. mën parce que ñëpp bokkuñu yem. impuissance sexuelle nag ñu indi ñaari anam ñun anam bu njëkk bi am na koo xam ne daf ne damaa am soxna. maanaam bëgg su ma cay dem maanaam di di di yàgg. Mhm. li ma yor aussi tamit maanaam mën a dëgër ba nga xam ne dana sentir na góor moo nekk ci kawam. kooku ñu am bu leen ci liggéeyal boo xam ne dañ koy tuddee góor kattan. Mhm. bii mooy góor kattan bii képp góor ku koy jëfandikoo yàlla dana la dimbal di nga mën a yàgg sa kaw soxna lu tolloog 30 minutes yoo xam ne amul effet secondaire amul arrêt de cœur te du la indil benn maanaam euh, euh, problème ci sa sa xol ak yu mel. sëriñ man li ma jaaxal ba ma ñëw keroog dama fay fekkoon butéel yu bari. tey ma fekk fi ñaar. waa gis nga maanaam góor kattan gi ñi ko xam dëgg hmm. maanaam kenn koo ko ci jaay jotul nga ko publicité waat hmm. moom mooy wax ay nawleem wala ay moromam yoo xam ne buñ toogee gis nga lu baax boo koy def di ko jaay hmm. jëru publicité ñetti yoon ñeenti yoon waxal benn yoon rek pare ci jàll ci li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy li nga xam ne du ñàkk nit ñi war ko xam chaque jour moo tax ci maanaam chaque jour liñ ciy indi ci quantité ci ay garab di ko composé di ko defar ay 40 bi ci suñ ci biir clinique bi. góor kattan kattan bii. d'accord voilà ñu mhm. indil leen aussi bi nga xam ne moom mooy magu góor kattan bu ne mag mooy moo jiitu ci clinique bi. d'accord mooy bi ñuy wax kaddu kër gi. kaddu kër gi waaw parce que solo gaaw góor am na ay goor day dëgër ak lu ne la koy dégg mais ñun mhm. dañoo indi olof bi. mooy lan mooy kaddu kër gi. d'accord parce que dañ daan gis bu njëkk suñ suñ suñ waajur yi suñ maam yi suñ maam mataar yi dañ daan yor ñeenti jabar teg ci ay taaral. Mhm. li l'islam digle mooy taaral buñ tegee taaral yor juróom-ñaari jabar ñi yor fukki jabar ñi nangam ñi jàngu nag naan jabar nit waru ko passé mhm. waaye dem leen ngeen jàngi parce que nit may nañ ko ñeent bu pare mu teg ci ay taaral voilà léegi loolu bu fekkee da ko daan am da nga daan gis aawo bi buy togg ñetteel bi wala ñaareel bi wala ñeenteel bi day ñëw di ko dimbale mhm. su paree nangam kenn moo koy fo fompale doomu ñaareel bi ak doomu aawo bi ak doomu ñetteel bi ak ñeenteel bi doo leen xàmmee mhm. parce que kër gi dafay neex dafay jaxasoo loolu li ko daan waral mooy xam-xam mhm. gis mag day am quatre-vingt-quinze ans quatre-vingt-dix ans di ngénte ba tey boo duggee Saalum fekk ko fa kal kal xas rek du jeex lu am kattan di ñemee takk xale yu ndaw te liñ mën ci xale yu ndaw gone yu ndaw yii léegi mënatuñ ko d'accord voilà parce que lu ko waral mooy xam-xam baa fa mhm. maanaam ressource naturelle baa fa maanaam lekk bi nga xam ne cere ji ñalang ji di ci àll bi di dagg ci reen yi mhm. di dagg ci xob yi di di naan doo doo doo naan ay per xam ne ñoom moo tax ñu toog ci moo tax dañu am 95 ans di ngénte léegi nag ñun gannaaw ci mhm. am na jaamu yàlla yoo xam ne nag nekkuñ réewu Ndakaaru koy def sunguf am na wax koo xam ne tamit daf ne damay soxla maanaam am na koo xam ne daf a wax ngóor a mhm. parce que su fekkee damay yéex a yu baaxut duma mën a am doom bu yu baaxut tamit ma yor a daanu mais pour daanu bi damay sonn parce que damay sëy ba di dellu mhm. ngay xam ne da ngay fowaat soog di mën a amaat maanaam amaat amaat comme oto bu daw ba ci kanam rek fay il faut ñu teg ko loxo puus ko ba mu tàkk mu soog di mu a dawaat loolu tamit da koy def ñett yooyu yëpp mhm. moom lay lay traité dugal la ko fii am na koo xam ne nag mooy buñaa bi nga xam ne dolli nañ ko ci am na koo xam ne nag li mu yor dafa tuuti wala mu gàtt kooku moom la ñuy wax tuuña ci borom xam-xam yi mhm. kooku yi dañ ko dugalaale ci biir enveloppe bi ñeent garab la am na boo xam ne hémorroïde lay traité am na koo xam ne day da ngay yéex a daan a daanu da ngay a jot sa bopp da ngay mën a jëflante 30 minutes mm-hmm. am na bi day defar ndoxu man yu mm-hmm. am na boo xam ne dafay réyal awra di ko guddal ñeent yooyu ñeent yooyu moom lañ la defal ni mooy traitement kaddu kër gi kaddu kër gi nag da may laaj lu waral kaddu kër gi parce que ah. góor mën naa yor ay milliards du am kaddu ci biir kër gis nga alburax waral mooy mm-hmm. nekk bu buñ la maanaam buñ boo joxee la nga war a joxe ci néeg ba rek mm. ñu respecté la ci biti mais la nga war a joxe boo ko joxewul ci néeg ba yow yaay mujj négocier ci biti mm-hmm. kon góor dafa war a jéem a respecté boppam waaye respecté kàddoom mm-hmm. moom lañ leen indil ci kàddu kër gi nii ñu indil leen aussi tamit maanaam li wax hémorroïde hémorroïde hémorroïde dafa am interne ak externe mooy bi génn ak bi nëbbu mm-hmm. bu fekkee bi génn la kooku dañ lay dafa am produit bu ñu lay jox boo xam ne ko ci déwee mooy bii nii dafay delloo hémorroïde bi ci biir maanaam daf koy opéré delloo ko complètement mhm. bu fekkee bi nekk ci biir la aussi tamit boobu bu ñu la joxee reen bii nii nga naan ko dafay raxas mbooleem feebar bi nga xam ne moom mooy moom mooy hémorroïde bi mhm. ñaar moom mooy traitement wu hémorroïde hémorroïde nag dinay waral ñett hémorroïde dinay waral ngay sëy ba ci kanam sa awra di peer mhm. hémorroïde dinay waral ngay xiif te doo mën a lekk d'accord hémorroïde waral ngay dem wanag say biir sa biir di xururi parce que hémorroïde ballottement moo koy jur ndoxu siti mooy jur ballottement ballottement jur hémorroïde hémorroïde jur impuissance sexuelle feebar bi noonu la ñuy jurantee bu fekkee xamoo ko nag mhm. maanaam pour nga faj doomu aadama ki dafay xaw a métti ci yow mi koy faj mais il faut nga xam feebar bi nu muy manifesté wu ba tey clinique bi indi leen lu ñuy wax diabète lu koy traité mhm. diabète nag dafa am tâche yoo xam ne tâche garaaw la mhm. am tâche yoo xam ne tâche yu la bu fekkee tâche yu garaaw la mooy nga dem ba ci biir ñu ne dañuy dagg loxo bi wala dañuy dagg tànk bi wala naa parce que diabète dafa am lu muy dafay waaw mu góom maanaam dagg fenn wala dara jabet daf koy bañ mhm. koo gis ñu ne gaañu nag jabet a ko rey rek lu ci ëpp dafa amoon góom góom bi mëntu wér parce que jabet lu ci ëpp à plus boo amee góom pour góom bi wër problème lay doon mhm. beneen bi ci des dafa am yenn ñu lay aaye lu mel ni saf suukar ak yenn ferment yi nga xam ne dafay dafay dafay jebbi jabet wala muy nga xam ne day day yee li nga xam ne mooy suukar doomu aadama bi ba nga xam ne ni dana la loo xam ne ni baaxul ci mhm. leen boo xam ne ni moo ngi nii kii mooy traité jabet di ko faj incha allah complètement am na dof boo xam ne day toog fële ne jabet de nit mënu ko faj ci semaine mhm. nit mënu ko faj ci weer nit mënu ko faj ci il faut nga def traitement maa farat naa fi leen ko su ngeen ko gëstuwul ma leen ko man saa fal yoo na ku gëmul jabet mhm. ma bëgguma traité jabet mais damaa yoroñu wax asma mhm. asma nag dafa sonal ñu bari mu nekk feebar bu nuru lu soof tamit parce que ñii dana leen yóbbu ci seen dënn di fatt ba rey leen mhm. ñii dana leen yóbbu ci ñàkk mën a nokki ba rey leen ñii dana leen yóbbu ci sëqat su métti soo xam ne day dem ba bi day dana leen yóbbu bu xiinee comme ci nawet lañ nekk gooy sax maanaam da ngay daw di làqatu que bu xiinee sax xel mi yëpp dafay ëlbatiku mhm. ñii daf leen def xel muy tee ñii daf leen def maanaam genre maanaam dépression ñii daf leen def lu nekk asma dañ koy faj ci diiru une semaine nga tàqali ko ak moom moom mooy garab gi mhm. léegi nag ma ñëw ak yow ci yi nga xam ni du wàllum paj mais wàllum njëriñ la njëriñ dafa am clinique bi dafay faj. Hmm. faj yi ma la ci wax nii moo ci gën a tuuti ci li ñuy faj. Hmm. dama la misaalal rek ne la bépp feebar boo xam ne am nga ko. moo xam jabet la moo xam tension la moo xam hémorroïde la moo xam ballottement la moo xam néew kàttan la moo lu mu mënti doon boo ootee ci numéro 78 614 44 44 appel direct bi da nga jot sama secrétaire garab goo fi soxla dañ la ko jaay livrer la ko wala nga ñëw jox la jox la garab gi faj la bu fekkee lu wàllu ñaan yàlla la hmm. kooku kooku sama domaine la yàlla nag dafa am ay façon am na koo xam ne est-ce que xam nga ne alburax mën na xam médecine traditionnelle maanaam mooy faj yi ma wax mhm. te du mën ñaan yàlla am na koo xam ne mun na mën ñaan yàlla mhm. te du mën faj médecine traditionnelle mhm. ne mel mooy tey boo demee hôpital am na ñoo xam ne bëñ rek lañ mun lañ am na ñoo xam ne bët rek lañ mun am na ñoo xam ne bu jëm sa yaram beeg yu mel noonu ku ci nekk dafa am domaine bu la may am na ñoo xam ne nag général lépp lañ mun ñooñu nag ñooy topp ñu nekk ci kaw ñi nga xam ne maanaam lépp lañ jàng côté bu ne lañ tey nag bu fekkee nag ñun yàlla daf ñoo dimbale ñu jàngale ñu wax médecine traditionnelle ba man ko mhm. médecine traditionnelle suñu wayjuru góor moo ñu ko jàngal maam Alaaji Abdoulaye Niass suñu maam daf ci def benn carnage boo xam ne ay paas paas la carnage bi dafay jàngale ren bu ne heure bi ñu koy ut heure bi ñu koy fàq heure bi nga xam ne moom nangam ren bu ne boo bëggee mu faj feebar bi li mooy dosage bi li mooy nangam li mooy nangam mu ëlbatikuwaat ñëwaat nag ak mhm. lépp yi doomu aadama mang ca mhm. mu njëkkee yéen ci wàllu wërsëg wërsëg wërsëg dafa jaaxal ñu bari. Mhm. est-ce que xam nga ne wërsëg tax na ñu xeeb kuñ warta xeeb. Hmm? wërsëg tax na ñu dàq kuñ warta dàq. wërsëg tax na maanaam ñu teg nit ku gën kañ teg fay ca kaw jël ki gën teg ko ci suuf. Mhm. loolu wërsëg da koy def waaye nag wërsëg it baax na it. Mhm. wërsëg mooy tabax jumaa mooy mooy tax ñu xam sa nécessité yu baax yi. mooy dem Màkka mooy mottali ponk l'islam yi. est-ce xam nga ne yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li muy li muy fort fort fort fort. Hamza ak Seydina Ali la gën a jege ci saxaaba yi hmm. waaye est-ce que xam nga ne masta fanaanoo di leen ñaanal ba bët set kenn la fanaanoo di ko ñaanal ba bët set muy Seydina Ousmane alayhi salaam lu waral loolu mooy alal hmm. daf doon takk xare amut lu mu yóbbu ca xare ba jaaxle loolu Seydina Ousmane ñëw bëccal ko ay gëlëm bëccal ko ay xeej bëccal ko lépp lu mu soxla woon na ko boo bëggee ma dolliwaat yontu yàlla salaa salaam ko ñaanal bët set malaay jibril ñëw na ko sa borom nee na Ousmane mi ñun malaayika yëpp jox nañu ordre pour ñu rus ko kon loolu Ousmane rek ko ko am mm-hmm. alal moo ko ko may mm-hmm. waaye nag ci kaw boo amee alal def ko fu baax mm-hmm. kon nañu uti gis nga am am jox nit ki moo gën a gaaw fuuf rocc rocc nit ki ci mu am nga nga nga rocc ko gis nga am am dañ koy sàkku waaye ci kaw fa nga koy sàkkoo jamono bi nag réew mi sëriñ si dafa bari waxkat yi bari yàqkat yi bari doo xam ki man doo xam ki mënut doo xam foo jëm doo xam foo jëmut loolu boo ñu fa nag dafay jaadu nga xam maanaam fi nga war a teg sa tànk xam ñi nga war a ñaanloo yàlla

ismu yaa rasaaxu yi nga xam ne dafa nekk diggante arsa kursi yu yaa ngi dégg ismu yaa yi nga xam ne suñu borom du ko nama xamal kenn ku dul dafa téye kurus mhm. du ko jaamu bañ feeñu ko xamal ko ko yooyu lañ dagg jaxase ko boole ko ay turu jinne boole ko ay turu euh, malaayika yi nga xam ne nii maanaam ci wërsëg la ñuy dox boole ko ay turu xuddam xuddam mooy lan mooy tey dangay liggéey tur ba rawxaan bi ñëw bu mhm. rawxaan bi ñëwee dafay am doomam doomam mooy xuddam bi xuddam mooy dem joowi ñëw xamal rawxaan rawxaan moom mooy ñëw xamal la yow li ñett yi yëpp dañ ko ci boole jaxase ko boole ko nag ay xam ne nii yàlla da koy kii ci alquran wañu pare nag boole ko ay cuuraay yi nga xam ne nii yenn yi réewu Inde lañ ko jëlee yenn yi réewu Nigéria lañ ko jëlee yenn yi Niger mm-hmm. boole ko coton mooy li ñuy wax wéttéen wéttéen bi lañ ko boole jaxase ko li war a ànd ak jox ko kii mag ñi ne nañ képp ku dëgër la laal ko te ubbeeku woo ñu xam ne ismu laahil azam wérut billaahi wala boo duggee Saalum mag ñi dëgg mag ñi kilifa yi ñuy seet di leen ran mm-hmm. dañuy ut seen ànd bu ndaw teg seen buntu nekk fajar fu mu jotee seen soxna su ndaw wala kenn boyal na ñëw teg copp nañ tuuti teg nit ñi dañuy dugg alal ji day ñëw wërsëg bi day ñëw da ngay ubbeeku moom kii ñi moom cura yaara saako bi mhm. am boo xam ne nag ci alal lay dox waaye nag dafa am côté bu mu cay doxee mu jaaro bi mhm. jaaro bi du lépp lañ mën a pratique ci télé parce que am na yoo xam ne mbiru mbiru rawxaan la mhm. day laaj nga jënd ay cuuraay ñu teg la ci maanaam yoon boo xam ne da ngay nangu ñu teg la ca li si xaaral la xoolal la mais jaaro bi képp ku ko am ñakk ma xàcc li ma doon billahi wallahi wa tallahi wa rabbul kaaba barka Cheikh Tidiane mm. dafay ànd ak ñetti cangat dafay ànd ak cangatu protection kenn du mën ci dara dafay ànd ak cangatu bayre da ngay am mahabba la plus tard maam li ëpp ci askan wala jëm laa ñes koo ci gis mu ngi takk jaaro bi koo ci gis li ci ëpp mi ngi am xabul nit ñi di ko bëgg di gën a am cofeel ci moom di am nang parce que secret ma la jab la la bu mu jëlee ci Cheikh lu ñuy wax secret si si si si di arabi damrawi ak tijaani boo xam ne ne moom moo ko moo ko ndëxantaloon Cheikh na Amadou Tidiane Serif mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne daraan toog fii jël tàndarma mi ngi mel ne maa ngi Dakar jël tàndarma rek sànni ne tàndarma ji de war naa dem sama sëriñ Khalifa Niass tàndarma ji ñëw ne bopp ci kanam maam Khalifa Allahu moom noonu daan def ci Cheikhul Tidiane dafa Cheikhul Tidiane mm-hmm. kon secret yooyu wér la yoo xam ne nit bu ko bëggee am dafa am fu muy jaar pour ñu dimbale ko mais pour defal nit mu am pour nit nekk ci jafe nekk ci tolof bëgg liggéey mu të ko nit bëgg déposé ay këyit mu të loolu yëpp am nañ ko ci carnage Cheikh Ahmad Tidiane yu wér yoo xam ne ne kuñ ko defal tay tay tay tay dañ taxaw garanté ko ne luy am la duñ fi naan la ay xaar day am lañ lay wax parce que xam nañ ki ñuy jëflanteeg ak li li Cheikh Ahmad Tidiane teg suñu loxo mhm. gis nga ab Tidiane boo ko doonee ñàkk dépassé wala neex hmm? billahi lazi la ila ku ko doon ñàkk dépassé xoolaatal sa bopp doo Tidiane bu mën a tijaan ku ko doon nag ça veut dire que bu fekkee ku gàtt xam-xam daf naan ma ko doon leneen ko doon leneen mais nit ku nekk nag wax dëgg na yàlla la nga màcc la nga nàmp nga mën a seede mënoo leneen <laughs> mhm. mhm. euh, ma ñëw ak ci ma tëjee yow ci ñaar moom mooy kumre xam nga luy kumre kumre waaw ah, koy door a daan defar mooy téere bi kii deretu béy bu gumba mm. teg si béy bu ñuul kukku lay doon béy bu gumba ñuul ñu rey ko tabaski. Hmm. xam nga dafa jafe de. tabaski béy boo xam ne dafay gumba. Hmm. ba pare ñuul kukku ñu rey ko tabaski gis nga ko lii xam nga deru béy la. Hmm. deru béy bu ñuul lañ koy lañ koy awee ak morso gumba moom lañ koy awee. morso gumba morso gumba waaw. morso boo xam ne gumbaa ko moom. am nag ay mbir yuñ ci boole def ko yi ay reen la yi ay sunguf la yi lenn la ci ay tur. ay tur jinne rek def ko ca kii boo ko takkoon tey maam romb téye lu ñuy tere romb nit. mbindeef mënu laa détecté ci kaw suuf kii boo ko takkoon ñu lay recherché hmm. boo ko takkoon nag laa wax ñu lay recherché di la wër dañ lay fàtte dañ naan yow lu xew boo nekkoon cim réew ñuy jàpp ñëpp mu takk mu mu ne sa ndigg yow yàlla dana lu musal yow hmm. ak ku ma billaahi la si laa ilaaha illaa hu yàlla dana lu musal moom moom moom kii boo nekkee ci nguur

mag ñi xam-xam yi ñu fi bàyyi ak am bu njëkk bu bu seen doom yi daan dem xare hmm. wala ñu wala ñu daan dem guerre tubaab yi daan ñëw daan leen jël si du yóbbu hmm. ñaar lañ leen daan jox kumre gi la ak mbubb mii nga xam ne moom la ñu wax miine ñaari la leen mag ñi daan jox bi lañ daan jox ne la sol ko hmm. gis nga kii boo ko soloon tey fóot fóote nañ ko lañ ko war a fóote ba pare balu fetal bu la romb billahi la si laa bal bal bu la jub bal bal ba day defee allahu akbar nit ku la joxoñ day damm nit ku ut ci maanaam jim laa yàq wala jim laa def lu bon wala nangam kooku yërëm naa ko àdduna yërëm ko àllaaxira mhm. gis nga nañ sonn ci suñu bopp yàlla dafa sonn ci doomu aadama mhm. ñii trois mois lañ juddu ñii ñi ñi un mois ñi maam lu ñu nekk rek nangam nit lañ ëmb neuf mois yàlla di la jekk-jekkal mhm. nga jógee ci ndoxu man ni yu mu yóbbu la ci deret ci dëtt nga jógee ci dëtt mu yóbbu la ci deret nga jógee ci deret mu yóbbu la ci déformé ci ci laraxet nga jógee ci laraxet ci ay yax nga ci ay yax mu yóbbu la ci maanaam déformé nga jógee ci forme nag mu mu yóbbu la ci nag di la montel xel di la montel étape di la montel étape di la montel étape ba mu mat 9 mois. Mhm. yaa ngi dégg mu génn la ci sa biiru ndey. gannaaw moom la génnee xar day juddu daw nag juddu daw. Mhm. béy juddu daw yow rek yaay juddu sa moromu nit jël la fomp la defar la. sang la dëgg la. nag di la te taalal la wan laata te naan ana liir bi. fu ñu mhm. di la di la nebbu nebbal. boo boo jooyee sa yaay sa yaay bu doon nelaw day jug nampal la. xar jooyal guddi bëccëg yow yaay daw fekk sa yaay namp ji. waaye du ñëw mhm. mais loolu bu ko ko yàlla defal pare nag nga judd naan chaque jour damay toog di xaar yàlla di xaar yàlla yàlla na yàlla na yàlla bay sa tool mhm. yàlla dafa séddalee ay tur ay ism mu tëjee foofu dafa jël àdduna ne cheikh yi ñu ngi nii ñoom ñoo moom lii mataari ñoo moom lii mhm. nangami ñoo moom lii nangami ñoo moom lii ba far nag moom moo toog digim na neutre bu ko bu ko defee nag seex altine ba seex war a am mm. altine boobu allah kulli haal seex dana am waaye nag ndax dana ko jëli bu ko seex jëliwut seex a koy jël si dégg nga wax gis que dégg naa la bu ko seex jëliwut seex si kon yàlla tooñut kenn bu ko defee nag ku ci nekk naan yàlla dana jox nit sa wërsëg d'accord mm-hmm. waaye nag ak yi wërsëgam ba pare nag foofu nag dafa tibbaat beneen xaaj lu ñuy wax daairatul fadli mooy mooy ñi nga xam ne lu luñ def neex na yàlla mm. buñ liggéeyee am buñ liggéeyut am bu ñu yàqee am bu ñu yàqut am bu ñu moyee yàlla am bu ñu moyut yàlla am loolu loolu lañ tuddee daayiratul fadli sama maam xalifa ne kaanu bi daayiratin fadli azimi kama qad kaana cheikhum xadmal maqamat nee na am na ñoo xam ne ci daayiratul fadli lañ leen bind lu ñu def soob na yàlla bokkul ak maa yàlla déedéet hmm. ñooñu buñ ñooñu julliwut hmm. neex na yàlla buñ jullee neex na yàlla buñ buñ óorut neex na yàlla buñ óoree neex na yàlla loolu maa tay ak yàlla la ba pare yàlla bu mu ko tibbee par daf ne eh, faalu li maa yurit maa tay dara safuma maa leen bind lu xam nga nu mel ci misaal <laughs> ñaata nit la la la la ay kere yeeg ay nangam jàpp 94 milliards ak nangam nangam da nga dégg Macky Sall wax ci moo tey mooy buur. mais ku nekk Pastef wala feneen buñ lay def tay tay tay mu jàpp la àtte loolu mooy daaratul fadli. Mhm. maanaam lu ko neex lay def foofu parce que moo jiite. <laughs> loolu d'accord ñu ñëw ci euh, Moustapha Dramé. Ah. mi yëkkati ay kàddu teg ci kaw ci ki nga xam ne moom mooy euh, Ahmed Aïdara noo ko jàngatee. waaw xam nga man nag yàlla daf ma dimbale ci ñett anam. mooy dafa ma dimbale ci. du wax ci lu ma xamul. Hmm. daf ma dimbale ci aussi tamit du ma wax ngir nit ñi seetaan ma daf ma dimbale ci aussi tamit wama shahid naa illa bi ma alim na hmm. mooy yàlla daf ne booy seede seedal ci loo xam. man ci ay dara laa xam lu bari Moustapha Dramé nag amaana parfois ñu toog euh, euh, jotaay xam-xam wala genre yenn yi boole ñu. Hmm. waaw dinañu déggante parfois yenn genre déggante yi aussi tamit déggante kilifa ak kilifa góor a moom invitante ak yooyu mais xamuma ci moom lu bëri mënu ma ko seede mhm. mais ki ma mën a seede te xam ci moom lu bëri muy Ahmed Aïdara biir na ma ne ku bëgg Ousmane Sonko loolu biir na ma man mhm. ñaaral ba def na ay sacrifice yu bëri ci Ousmane Sonko loolu ñaaral ñetteel boos tamit ni mitunu Mbàkke bi nekkatoon mitunu Yewwi Askan bi mhm. mitunu Pastef la woon d'accord foog ñuy bàyyi xel Ousmane Ousmane Sonko bi mu demee Ahmed Aïdara laa fa gis ak Malick Gakou ak Déthié Fall ñii laa fa gis ma mais ay nit nag bu fekkee da ngay xew la dëkk ak dëkk ñu interdit dara ñu war fa dóor ay lacrymogène ñu xam ko ñu war fa def nangam ñu xam ko ñu sacrifier seen life seen bopp ñëwal la kooku mënoo koo seddal leneen lu dul loolu mhm. beneen bi ci des moom laa gis ci ñi nga xam ne Ousmane Sonko tax na ñu nekk maire mu taxaw reconnaître ne Ousmane Sonko bu dul gannaaw yàlla képp ku nekk biir Yewwi Askan Wi nekk maire wala député war nga ko ko sante mhm. loolu nag maanaam gor wax waxkatu dëgg moo ko mun tamit ki ñeme fi mu jëm moo ko mun. Mhm. beneen bi ci des xam naa ne Ahmed am na am am nañ tuuti alaax. Mhm. dinañuy dinañuy échangeante tuuti mais xamuma ci moom naa fekk gisuma ko man lu ma gisul du ma ko seede. Mhm. la keneen wax intéressé wu ma. d'accord beneen bi ci des mooy euh, Ousmane nag wala ku dul waxu nit ci damaa dégg. te gisoo indiwoo preuve yu maanaam yu légal. Mhm. loolu tax Ousmane ba nit Ousmane na àdduna bi yëpp taxaw ne da ngaa bon feggoonoo ko ko du la bàyyi. Mhm. na àdduna taxaw ne da ngaa baax feggoonoo ko mbaax gi du la jàpp nit kooku la. Mhm. Euh, benn ñaareel bi mooy damay yey patriote yi fi ma leen yeyee mooy patriote yi dañ ma dama leen a mere benn côté. coté bi ma leen mere mooy dañoo neex a yóbbaale ci lu bari. parce que genre nit dafay wax caw tey at. day toog di wax ci Ousmane Sonko di ko saaga tey mu si wax ci benn baat pour faj soxlaam rek ñu jël loolu yëpp dagg ko sànni ko ci internet bi. Mhm. may ko buzz. Fatoumata Ndiaye. loolu nañ ko bàyyi man tudd ma tur damay scénariser mboolem. man maay tudd. voilà man <laughs> parce que ku ma nawlawut ma la tudd voilà yàlla loolu la mën dimbale. allahu akbar nawlawu yaa ngi dégg benn ñaareel mooy. Mhm. da ngay bëgg buzz. Mhm. bëgg am compte TikTok bu dox. bëgg nangam ñëw ne da ngay jàppale Ousmane Sonko mais loo koy jàppalee saaga. nañ fàttaliku li Ousmane waxoon képp kuy saaga bokkoo ci man ah. képp kuy wax ñaaw bokkoo ci man képp kuy ñàkk de respect kilifa yi bokkoo ci man mhm. képp kuy ñàkk respect sénégalais yi bokkoo ci man mhm. xam nga lu ma indi mhm. projet boo xam ne dafay taal seen xel yi projet boo xam ne dafay tax ngeen xam zircon bi nekk ci dëkk bi gaz bi phosphate bi assance bi gasoil bi li ngeen moom géej gi jaww ji li nga xam ne war naa mën a développer Sénégal ba ndaw yi duñ génnati di di uti ji feneen loolu laa leen waaye indilu ma ay saaga indi lu ma leen ay xasante indi lu ma leen ay xasante léegi da ngay bëgg am benn compte TikTok bëgg nañu déglu déglu la nga ñëw ne waaw allo nangam nangam nangam taxaw dugal say kii Ousmane Sonko commencé taxaw di saaga ndey di nangam di taxaw fii di saaga wante kee ngeen di defante rival boo demee ba nga xam ne sa compte TikTok yëg na nga taxaw nga nga dem jaay ko état. Mhm. bari na fi de. dañuy bis ne seen Ousmane. ko bañ. Mhm. nga dem jaay ko état mosu gis nga Ousmane bëgg ko yombul Ousmane gor moo koy bëgg. Mhm. ku am fit moo koy bëgg. ku am ambition moo koy bëgg ku xaalis yitteelut moo koy bëgg yaa ngi dégg mhm. ku réewu Sénégal yitteel moo koy bëgg cinq yi ñoo bëgg ñoo mën a bëgg Ousmane déglu ma ku am fit mhm. comme man maa ngi sant yàlla awma lu mbindeef mu mën a taxaw sama kanam mu ma mën a jox lu ma gisut mhm. billahi wallahi wa tallahi allahu akbar mbindeef laa la wax mu mën a taxaw sama kanam mu ma gisut parce que damaa damaa gis ku am ngor may ñaan yàlla waxuma nag may ñaan yàlla am ngor ba dee te jàpp naa ne sama deret war bokku ci d'accord muy sama deretu baay muy sama deretu yaay war bokku ci mm-hmm. benn ñaareel ba ma gis maanaam ku dëggu te Ousmane ku dëggu xam nga luy dëggu dëggu mooy nga nekk ci dara nga nekk ci dara fëkk du la yóbbu mm-hmm. nga am ambition ci li nga nekk lu ñu la wax nga focus ci jëmm ji nga bëgg focus ci projet bi mu indi bu lijjanti leneen d'accord ñaar mm-hmm. ñetteel ba maanaam ko ku bëggul buzz maanaam tey damay ñëw pour comme li ma wax léegi pour am buzz fii ñëw nangam jël sama image dem jaay ko état moo fi bari bojo bojo yeeg saagakat yeeg ñi fi yoroon ay compte TikTok di kaasal Ousmane ne nekkul dëgg ci ñoom. Mhm. dañuy dem ba am benn benn benn euh, crédibilité benn possibilité taxaw jaay état seen cont te duñu wane ne état lañ ko jaay. Mhm. taxaw nag gor duñ ko jënd. d'accord jaam la ñuy jënd. Mhm. mais gor kenn du ko jënd. ñeenteel damay dégg ñu ne jënd nañ kii jënd nañ kii jënd nañ kii gor. kenn mu amul njëgam. ñeenteel bi mooy lan mooy nga am bëgg-bëgg bëgg Sénégal. ku bëggul Sénégal mënoo bëgg Ousmane. ku bëggul Sénégal mënoo ko bëgg. d'accord ngeen gis ñuy taxaw di saagaak yëpp dañoo daw génn Sénégal bëgguñ Sénégal ku bëgg Sénégal da ngay toog. yàgg naa nga rayante xeex bëgg Sénégal. Mhm. wala nga génn boo génnee nga xeexal foofu sa réew. Mhm. mais pas génn di xeex sa réew. di saaga ki nga xam ne ni tey askan bi adduna bi yëpp nangam beneen bi may tëjee mooy mindeef du président Macky Sall du état wu Sénégal du ñu koy jàppale du ñuy def ay pexe du ñu bokk ci coalition bi seen pexe boobu mooy coalition ànd ndërmeelu Ousmane Sonko. Mhm. kenn min mbindeef mu mën a tere dem Ousmane ko élection wala tere ko jël réew mi amul nañ noppalu yàlla dogal na ko ci xaatiram nga benn wa ilaa ñaar ñu wax ñu ne rek réew mii maanaam du réew droit jërut ñu dem élection nañ jël yër réew mi joxaat ko ma Sall mu jiitawaat ko hmm. lii kese la ñaar la mais bu dul loolu mbindeef nu ko ko tere beneen bi naka ngay amee mbër taxaw da yow yaa man mbër bi te ñemee woo bëree yéen a man yéen ñu suuf yéen a ñu large yéen ñu ëpp xaalis ñoo leen ñu bëri. d' accord su ngeen ñemee lii kese la. <laughs> ñu ñu jeexalee ak euh, Moustapha Diakhaté mi ngi ay kàddu teg ko ci kaw président Ousmane Sonko. xam nga li ma waxoon émission bi passé oui. Euh, dama ne ki nga xam ni boo jëloon jikkoom teg jël jikko Sonko teg jaxase ñaari jikko yi ba xàmmeewu leen. ñoo ne ko tànnal benn tànnal jikko yi ñaar mu romb fa jikkoom jël jikko yi Ousmane Sonko. moom Moustapha ko mënta mel ni Ousmane. Mm. benn ñaaral bu mooy ki fi taxawoon ne Walfadjri la ko waxee woon yàggut. vidéo yaa ngi fi ne président Ablaye Wade li mu gënee président Macky Sall mooy président Ablaye Wade buy buy def dara nga ne ko baal mu bax mais président Macky Sall soo doon rey dara wala muy rey nit nga ñëw nga ñëw fekk ko mu téye paaka nga ne ko baal mu ne la banaa boo ñëwaatee fekk bat ba tàqali ko lu muy signifié mooy président Macky Sall du baax mhm. te du jéggale te du jëlale te ku soxor la lii la wax de man ñun li ko jàngatee mhm. moo ko wax moo fi toogaan yi tey ni Antoine mii Macky Sall nar a teg ministre de l'intérieur moo def nangam def nangam def nangam bu ñu ko fi tegee dafay yàq réew mi mhm. kooku moo taxawaatee tagg Macky Sall tagg Antoine kon li ma la wax sànq ci gannaaw mooy lan mooy ku amul ngor mënu bëgg Ousmane Sonko amuñ ngor parce que xaalis la ñuy jaamu benn ñaaral bi mooy alaku alkande weesuwul ki gën ñëpp ndayam gën ndayu ñëpp nga taxaw ne ndayam gënul sa nday ñu waroon la rey yow mhm. sur l'instant mhm. ci réew mii bu fekkee ne quatre-vingt-quinze musulmans a tër ci penc mi ñëpp di gis ñu ut jaasi tàqali sa boobee sa baat bi parce que lu kenn def nga def mhm. kaxaab yow léegi maam li nga wax sax kaxaab mi doon xas yonent bi waxu ko kaxaab lu muy bon bon waxu ko te yonent bi boo ñëwee boo ñëwee ma garanté la ko déggee dafa daw ñëw tuub si yonent bi jéggal ko waaye yow jéggaloo da gën a xamadi gën a réew gën a offensif suñ kilifa yi gën a offensif suñ mag ñi kon boo tourné naan ay Ousmane Sonko 50 ans yi nangam nangam war war war xam nga yéen seen problème mooy. Hmm. maanaam bu ngeen sañoon am doom ju mel ni Sonko wala seen ndey yi bu ñu sañoon am doom ju mel ni Sonko te mënuñ ko am. Hmm. soxore ngeen ko seen ndey yi soxore ngeen ko seen jabar yi. Hmm. mu leen di neex ak mu leen di naqadi Ousmane Sonko benn la woon yàlla indil ko Sénégal ñun askanu Sénégal ndaw Sénégal ñu pare pour jël ko lu tolluwut ak 16 personnes wala 20 quelques personnes taxaw def seen i réunion ngir seen i business ngir seen nangam ngir seen i ñàkk a fay lempo ngir seen i ñàkk toog muy dox ngir seeni i ñàkk a régler problème sénégalais yi yaa ngi dégg ngir seen ñàkk compétence taxaw ne askan boobu duñ dañ dañuy souffrir ba dee mais duñ jëriñoo kii ñun askan bi ñooy leen waxoo leen dëgg dañ koy jëriñoo mm-hmm. yéen lu ngeen den dund doy na koo ci xool compte banque am kenn xamul nu mu toll koo ci xool mi ngi am ay kër mhm. koo ci xool mi ngi raayal état gannaawam koo ci koo ci xool fayul fayul location koo ci xool fayul courant bu dox koo ci xool ñu ngi koy jox ay bon de carburant loolu nag bu fekkee nag da nga koy amee ci tappale ak ci fen ak ci kàcc doo mën a bëgg koo xam ne dafay bëgg jël réew mi teg ko ci siraatal mustaqim loolu mënoo koo bëgg képp ku nekk ci système bi juddoo ci système bi màgga ci système bi yoroo ci système bi nartee dee nartee nartee maanaam eh, ju suuxat sa doo mën a bëgg Sonko doo mën a bëgg askanu askan wu ànd ak Ousmane Sonko waaye askan bi bu ñu dee 100 la 95 pour cent yëpp wala 100 yëpp sax laa wax yéen ñooñu kese yéen 20 20 personnes yooyu kese yéen a ci bëggut Sonko bëgg ci ay finance ñeneen. Mhm. te li ci kanam raw li gën. d'accord mhm. combat Modou Lo Ama Baldé. <laughs> mais nag ñu bëri nee nañu Ama Baldé dañu ko jekku mystiquement. ah loolay wax la rek ku gëmul mystique mënut a jekku ko gëm mystique. waaw hmm. ah, am na mbër moo xam daanaka gëmatul mystique ci du du nuyoo ci kilifa yi. man dama ko seetlu ñetti yoon. Hmm. waaw par parlo ma nag mais dama daan gis bu njëkk daan wax maa ngi nuyu kilifa diine yëpp léegi gisatuma benn jotaay mu ne muy nuyu kilifa yi te kilifa diine yi ñooy ñaan. benn ñaareel boos tamit man ne sama mbër la woon ci àdduna. Hmm. Modou Lo laa mos a supporté mosuma supporté kenn ña ca Kaolack ni may dégg. am na sama benn rakk pap bu ñuy wax Ablaye Niass doomu Alaaji Ibrahima la xarati Modou Lo la xam ne bu ma bu ma déggee vidéo bi dana xam bu baax. waaw dana xam bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. waaye aujourd'hui moom amaa Baldé ku mu bëree teg ci kaw suuf yow laay faral yow laay ñaanal moom laay faral moom laay ñaanal d'accord moom laay faral moom laay te combat bi nag combat patriote la mhm. déglu ma combat patriote yi la combat bi nañ ci xar suñu tànk tuba yi ñaan ci yàlla supporté ci def ci luñ man ak luñ mënutu ndax nag ku la lebal guddi ku la lebal guddi fe ku la lebal ker fay ko guddi amaa dafa def lu kenn defut ci mbëri kenn ñemewut takk lii mhm. def point de presse adduna bi yëpp di ko gis mu jël ay responsabilité am wane fi mu féetee nëbbatuwut làqatuwut wane ne moom mu mbaru askan bi waaye dama ne askan bi nañ ko delloo njukkal nañ ko fay nañ duy stade bi ba mu fees del nañ ko supporter lu làmb ji laaj nañ ko ko defal. Mhm. xam man lan fan laa taxawee. Mhm. ku bëgg Sonko mu bëgg la ku bañ Sonko ma bañ la. d'accord man man li ma sax man aw man aw ma problème mu adduna de gis nga man sama jabar sax bu bañee Sonko ma fasal la. barke Sidi Ahmed Tidiane ni may dégg. billahi wallahi wa tallahi su suñuy suñuy suñuy lax-laxal naan nag di wax ay waxu détail sax suñu duggee dañ naan képp noppi dañ ko wax sama kanam may ma leen ko parce que man lu ma bëgg bëgg naa ko mm-hmm. mais nag dafay fekk ma bëgg lu baax damaa damaa gis lu baax yéen a Sénégal lu baax bëgg lu baax Ama Baldé ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm may la ndam lu sedd guy ci daraja Cheikh ma Tidiane ndem laa mujj dana am mm. waaw ndem dana am d'accord ñu tàggoo mm. ñu ngi sant di gërëm di wax ni li leen fi indil ci njëriñu clinique beeg njëriñu askan bi yëpp yéen ko moom moomuñ ko ñi ngi wax ne it dañ koy waxee toujours tous les vendredis nañ ñu xaar ci site bu mag bi. incha allah danañ def analyse bu jaar yoon boo xam ne ci mbiru àdduna la mbiru politique rek wane tolluwaayu askan bi ak naqaru askan bi ak lépp li ngeen ne yéen a ngi koy bëgg a laaj xam naa danañ ñaan alburax sax émission boobu demee ba ci kanam danañ ko ubbi ligne boo xam ne askan bi dañuy dañuy dañuy wax seen i njëriñ. ak seen i doléance parce que aussi euh, xam nañ ki doon xam ñi askan bi di seetaan ak askan bi bëgg. ba ñeme nañoo waxal askan bi yàlla na yàlla defal askan bi jàmm defal réew mi jàmm képp ku yéene Ousmane Sonko jàmm yàlla nga am jàmm képp ku ko yéene safaan ba yàlla nga ci jiitu ak koo a doon nguur gi fi nekk yàlla na ko yàlla daane yégal Ousmane Sonko ci barke Cheikh Naama Tidiane jërë ngeen jëf jërëjëf 78 614 44 44 wala 70 657 18 18 wala 75 644 77 77 wala 78 362 44 44 borom def gis defu maam Khalifa nag itam marabu Ousmane Sonko moom lañ seet si woon tey ngir waxtaan ak moom ci actualité bile waxtaan ak moom itam ci clinique bi nga xam ne da ko ubbi uniquement pour dimbali askan bile mbokk yi jërë ngeen jëf. رمضاني هذه سنتي فارض